arbitre bi sifflé na combat spécial bi dox ci diggante ndaysaan bébé bébé Balla ak toujours pare toujours pare moom nga jàkkaar lool mooy njool mi Bébé Balla moo tent bopp bi ndaysaan toujours pare fii la mujjee bëre defet la amoon digg dama macca pare laa Bébé Balla ndam lu rëy la mujjee am fii ndaysaan lamba gi noonu Zarko daw na romb doxali cey lamb toujours pare ndaysaan ak Bébé Balla Bébé Balla ndaanaan la waaye toujours pare combat yi mbëre yëpp musul am defet bii passé la bëree ak ma ca Pereira mu daan ko day rectifier erreur am wala déet da cay dellu Bébé Balla ndaanaan la ci làmb ñoom ñaar ñu ngi la waatoo Bébé Balla teg tànk càmmoñ toujours pare teg tànk di joor leçon biñ ma jàngaloon fàttewu ma ko mooy toujours pare tànk bi mu teg mën naa sonal Bébé Balla ndax fausse garde la ak garde waaw loolu du ma ko mukk sama papa As Birahim Ndiaye papa yàlla na yàlla guddal sa fan na nga am wér yàlla na nga am jàmm yàlla defal la ko defal ko suma papa nga suma xarit nga sama lépp la As Birahim Ndiaye ndaysaan ñu ngi noonu toujours prêt ndeysaan moom nga jàkkaar lool Bébé Balla moo la woon ginnaaw waaye loo mën a dégg yooyu bëri lool ci stade bi xoolal ma lii ah! <laughs> ah ah baax na ba mu sotti maa ngay dàq rek de ña nga ca arbitre bi àtte na kaay leen da ngeen jël avertissement bëre kaay leen ndeysaan ñëw leen arbitre bi sifflé waat na Bébé Balla toujours prêt Bébé Balla toujours pare daw na Bébé Balla daa bëggoon dugg ci tànk bi toujours prêt da koo yaa ngi ne tey paree door na ko Bébé Balla door na ko daan na ko Bébé door na ko mu kaawo daan na ko Bébé daan na ko waxoon ko ndaanaan la Bébé Balla ndaanaan la xale la boo xamante mën na bëre xale ma seen wax naa ak moom ndaysaan ma nga booy ñaa ndaysaan lii dafa rafet xale baa ngay wax ndeysaan làmb gi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Zarko baay ma njoon kottante nañ ci kaw ndeysaan kottante nañu làmb gi noonu dafa rafet ndeysaan làmb gi façon bëre. waaw ñoo kontaan si yow waaw maa ngi di kontaan si yéen lamb ji mu ngi ci yoon ñaax waaw nii rek la mënoon demee jàpp lu mu laaj la Abdou Ndiaye sama ko man ne lu mu laaj defal moom sax xeex la ma man xool waaj xam ne su ma ko tóor woon na mën a wàcc waaw ma toog mu kaw ma yokk ko mu def bii ma sama bii ma sama huitième combat sept trois défaites waaw champion yooyu dama leen daan dama war a génn grand combat laa bëgg ndax dama daan caat daaw de faal daan daan jóg bu yàggul quatre jours yu bëre waaw waaw. waaw waaw waaw loolu lañ digal nii boo ko joxee mu ci sa équilibre rek nga yokk mu jeex